mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga man koy am. monsieur la jaajëfalee ci liggéey euh, tey ñëw nga fii ci euh, épargne Thiénaba ngir nemmeeku si ñi nga xam ci li nga xam moom ci euh, jot a jaar. mais di sant yàlla di gërëm toute la population de Thiénaba jiital ci gërëm li sunu baay sunu sëriñ. Baye Assane Seck mais di xool nit ñi nit ñu mobiliser woo dans le calme la tranquillité ñëw bëgg a seen devar citoyen loolu lu ñu neex la e cela démontre encore une fois que citoyens yi ils engagé engagés et que à chaque fois danga daan gis ñuy élection municipale daawuñu ko fulal mais les gens sont conscients que c'est une élection bu am importance parce que yeneen élection yi c'est national beneen envergure la mais fii c'est le rendez-vous d'un homme d'un groupe avec sa population te comme yaag population bi yéen a dëkk suba ngoon xam nañ la nga xam leen loolu mooy waral engagement bi ba ñëpp ñëw bëgg a voter vraiment ñu ngi sant yàlla on a vu aussi que l'administration a joué son rôle pratiquement l'essentiel des bureaux on était ouvert à huit heures nit ñi ñëw et les gens en masse taxaw les populations aussi sont venues et tout se déroule en tout cas pour le moment dans la tranquillité et dans la transparence euh, euh, oui mais ñu jël hauteur ak grandeur ça c'est une élection du ñun ñooy choisir c'est la population qui choisit bu résultat yi génnee ku jiitu mais loolu la population yi bëgg ñëpp ànd ceeg ñoom le maire élu sera le maire de tous les Thiénaba Thiénaba donc dafa war a nekk loo xam ne nii ñëpp a koy accepté mais ñun def nañ li ñu war a def dox nañu déroule nañu suñu programme wax nañu nit ñi maintenant c'est aux populations de choisir qui leen neex mais nous si la population choisir Alpha Baba mais on va l'accepter ah parmi le neuf candidats ñun ñëpp ñoo bokk wax bi bokk lu ñu bëgg si population bi ne kii la mais na ñëpp ne kii ñu féliciter ko mais cana ba jëm ci kanam ñu àndaat liggéey.